mbokki Sénégal rawatina Ceeskaay benn dëkk ñaari gaar ah Thiès production ni saraax ci ëxlu lamb yi organisé benn gala de lutte bu mag ñu ni loolu kañ la le 31 décembre fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop mbokk yi muy première édition drapeau madame la présidente Anta Babacar Ngom Diack di directrice générale KFC mbokki amateurs yi ci production boole ñaari xale ñaari futur champion grand combat bi fils de Samba Diaw nekk ci école de lutte Samba Diaw fa séene fa laaleeg Mor Sarr bu Bada John bokkit écrit mu santé loolu di drapeau madame la présidente Anta Babacar Ngom Diack bu Sédima premier combat spécial Kara Junior bëgg Séwéju ñu ni ko koy laaleel mu ni jàdd fas yéene jóge ba fas di drapeau Mouhamadou Lamine Massali PCA de l'ONFP nekkit président du parti UNR deuxième combat spécial bébé liiru nekk ci école de lutte Samba Diaw ñu ni ko koy laaleel mu ni avenir nekk ci écrue Moussante ñu fas yéene bëre drapeau monsieur Habib Kane di président mouvement Radar troisième combat spécial petit tigre ñu ni ko fooy ware mu ni Fass Mbao ñu ni ko koy laaleel mu ni armée bu pire ñu fas yéene sëgg bëre drapeau Pape Gueye di président mouvement Aar Jàmmagën Sikap Mbao quatrième combat 42 bu écrue bëgg Sewiju ñu ni ko koy laaleel mu ni licence bu énergie cinquième combat laay goote numéro 2 bu Thiès Mbolo fa séenee sëgg bëri ak Boy 6 bu Tiwaawan sixième combat mbëx soble di laalee caatu ama mbokk yi ngontu keroog Munitier production ñan ñooy say invité d'honneur monsieur le gouverneur de la région de Thiès monsieur le préfet de la région de Thiès monsieur Babacar Diop maire de la ville de Thiès monsieur Birame Souleye Diop maire bu zone nord monsieur Babacar Ngom bu Sédima madame Aïssatou Ndiaye commissaire central fii ci diwaanu Thiès kaay monsieur Babacar Dembélé di premier adjoint au maire fii ci zone nord monsieur Samba Koumba Samba di président des conducteurs Mouta Jakarta ci diwaanu Sénégal Mélissa Fall di opérateur économique sufi Kata ñu gën ko xam ci Badiane ak Dame Sène di artiste monsieur Bafou Mbengue ñu gën ko xam ci Bafou Connection nekk ci Jaxaaw soxna Ndey Mariam Sow di femme de développement monsieur Abdoulaye fal dëkk ci Jaxaaw ñu gën ko xam ci commissaire monsieur Pape Gueye monsieur Sidi Diakhaté di promoteur de lutte monsieur Pape Samba Gaye moom it di promoteur de lutte ak monsieur Babacar Sow di notable ñu ni dugg bi ñaata la tribune 2000 francs CFA loge 5000 francs CFA mbokk yi ci production ànd ceeg ak ay sponsor muy Sédiment KFC Iral TV RTT TV ak Thiès Média assurance vi ak Palais des Arts mbokki amateurs yi xew-xew bangoog mu yemook le 31 décembre fii ci Podrom Ndiaw ma ko du jóg ak ci production ndaw combat yu rëy te neex